laaj yéen ak président Macky Sall ak gouvernement am ndax ñun waa Dakar ci Sénégal lañu bokk wala bokkuñu. boo nekkul transhumant boo nanguwul ñëw joxe sa bopp ñu takk ci buum diri la ba pale ba nga gis la grand boss mu waxaal ak yow poste ministre wala sax premier ministre ah wala PCA wala DG. PCA wala DG. PCA wala DG. PCA wala DG.